salaamaaleykum wa rahmatulah euh, di nuyu kilifa yu tedd fi nekk di ay kilifa lislaam surtout di commencer par sunu doomu ndey sunu mbokk Saloum Saloum sunu sëriñ le PDG Sidi Lamine Niass ñun waa Kaolack bu ñu ñëwee Walfadjri dañuy am mbégte mu rëy dañuy am fierte ndax Sidi Lamine dafa nekkoon benn ambassadeur boo xam ni bi mu nekkee Dakar def lu fi kenn deful teg fi wal fajri taxawal ko national kon waa Saalum ñun ñi sosoo Saalum ñun waa Kaolack ak li Sidi Lamine dafa nekk sunu Sidi sunu mbégte kon duñu def lu may toujours loo gis rek mu xew Walf wala mu jëm si ci Walf yi danañ jóg taxaw waree na ñun Walf lañ bokk te dañ koy nangu nag ndax Walf mooy sunu Walf loolu sunu pété la ah Oustaz Adi moom émission bi benn la spécial parce que fii diine diine la fii dëgg moo fi jolli fii dëmm yi ñoo yëngatu xol yi xel yi yëpp ànd jëm ci yàlla kon boog liggéey boobu sa adi def siri di ko def moom it parce que chaque jour mu ngi walfu di ko def mën nañ bu amoon bu ne télévision bu gën a populaire bu gën a jege askan bi bu gën a jege xol yi mooy wal fajri ni mu amee député du peuple wala avocat du peuple am na télé et rajo du peuple donc félicitations jërëjëf yaa ngeen fi yàgg lool ànd ak succès yu rëy yokk yokk bu wóor maa ngi gërëm ñu fi toog ñëpp jeune frère aussi gis naa ko fi tànn nañ ko tànneef la ba gëm sa bopp boo waxee bu ne yaay sama référence ma ne ko nit day gëm boppam muy sama rek Bougane Gueye Dany ah Serigne Saliou Touré moom référence la ci l'islam ci murit gi ma doon man mi nga xam ne Daaru Salaam laa jébbalu ba ma amee ñeenti at boobu sëñ Modou Mamoun Mbacke ba gëdundu mu Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm man foofu la bokk sëñ Ahmadou Mbacke laa jébbalu woon sama maam ni ma sama maam soxna sëñ sëriñ Modou Mamoun ñëwetee bu àndee ak sëñ Modou wala sëñ Ahmed doom yi ku ci ànd na nga jébbalu ci moom ngi jàng daara maa ngi soog a wax jàng daara mu ànd sëriñ am moo nelaw daaw jéeg xalif xalifa Daaru Salaam ma jébbalu ci mais sëriñ Saliou Touré ci yoon wi ah, gaynde la ci woon lu ne def na ko ci yoon sëy donc je pense que turandoom sëriñ Touba toujours si di wax ko islam daal la te neex na ba pare daal yonente bi ñu bokk ko sallallahu alayhi wa sallam sama turandoo Moustapha laa tudd jërëjëf jërëjëf merci jërëjëf El Hadji Diouf euh, ci kàddu yu rafet yooyu nga fi génne euh, bet noonu rek nga mën a mel léegi Touba moo war a jël kaddu ki nar a jël kaddu nag ci turam moo di suñu benn wëllëre ñu koy wax Amadou Saloum Dieng euh, mat na lool war na mën jëlit kaddu pour waxtaan ak jataay bi bon nag sëñ amadu Dieng ñu ko bi pour waxtaan ak mbooloo mi bismillahi irrahmaani irrahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina moolana wa xabibina moustapha alayhi salaatu wasalaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbokk yi ne ci saal bi ak ñi ne ci réew mi ak ñi ne ci biir réew di siibu jotaay bu am solo bi nga xam ni jotaayu alquranu karim la ñu koy def ci weeru alquranu karim di ko def ci bërëbu alquranu karim suñu mbokkum daara Cheikh Sidi Lamine Niass ñëpp xam nañu lu jiitu muy taxawal lii wala muy sos lii doomu daara la bind bindkat la jàmbaar la gëstukat la moo tax bi ma mbokk yi waxee ni dafa jël bis bu tedd bii mandargaale ko suñu jur suñu soppee suñu xarit suñu lépp Serigne Saliou Touré Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou moom Serigne Touba ñu jël bis bi mandargaale ko ni bu doon si sago kenn ci taalibe Serigne Touba yi ñëw taxaw wax ci turu taalibe yëpp ndax xam naa ne taalibe yëpp kenn ku ne bu ah, bu doon sa sago nga teew toog fii wax tuuti ci li nga dund jooju wax tuuti ci li nga xam ci moom seede tuuti ci li ma defal wala li def ci sëm pénc wala ci sëriñ wala saw askan kon bu ñu tànnee nii nañu wax loolu dañ ci kontaan ba dama ci dugg naa nuyu kilifa yu tedd yi nga xam ne fekk naa leen fi xam naa danaa gàttal ndax maa ngi bàyyi xel waxtu wi waaye nuyu bi dañ koy tàmbalee ci al oustaz al allaama cheikh al di ko xamal ne lii muy def ñëpp la koy defal lii muy def mi ngi ciy jàngalaat sax ñu jàngoon bay firi ndax ni ko mag ñi daan defee la koy defee ni ko mag ñi daan sellale la koy sellale te mi ngi ciy bàyyi xel ahkaam yëpp ak atte yëpp ak marage bi am solo yëpp di ñaan suñu borom mu kattanal ko dëgëral ko ba yàlla jàppale ko ci li mu bëgg a liggéeyal karim yàlla gën koo dëgëral ba mu gën koo mën lépp nag yàlla boole ko bàyyam bu tedd bi ñu di ci jëf incha allah di nuyu son excellence ki nga xam ne moo fi teewal l' ambassadeur la Palestine nga xam ne ñun suñuy xarit lañu ko xam Touba xam taxawaay bi nga xam ni kilifa ci Touba am nañ ko ci Palestine ko xam koro bi ñu ñëwee defe naa bi sëñ Muntaxa toogee ñoom mbokk nañ ci ambassade yi njëkk ñëw nuyu si ko bi ñu ñëwee sëriñ Muntaxa dag na ko ñu ngi ci woon te ci la ñuy sax mooy di jàppale Palestine ba ñu am seen indépendance incha allah ci arab sax la ko làkk nangu sax ko kon nag loolu day wane ni Touba ñu ngi taxaw ci wetu peuple palestinien bu yàggu rek man ak moom ànd nañ benn conférence boo xam ñu ngi ko doon def ci Jordanie doon ko def ci Al-Quds conférence ba jeex moom mi ndeysaan diggante bi cent kilomètres la mu ne dafa bëgg dem nuyu ji way juróom ndax toog na ñeenti at nuyu ji ko mu dem ba ci frontière ba Israël yi ne ko doo dugg te moom palestinien ñu tere ko mu dugg ci biir réewam. noonu kenn mënu ko imaginer ni mi am ci kaw suuf ba tey kon ñu ngi ñaan àddina bi yëpp ñu gën a taxaw fësal seen taxawaay ci wetu Palestine ba nooteel gi nga xam ni juif yu bëri ñu ngi koy def ci kanamu peuple bu ignorant bu musulman boobu yàlla jeexal ko te ci suba rek maa ngi koy seede <coughs> taxawaay yi nga xam ni saa su nekk suñu magum daara sëñ si Lamine Niass mi ngi koy def ci cause bu nawul boobu moom da ciy def ay émission da ciy def waxtaan bisub haadi bi bu ci demee fële ca gàmm bi yëpp la koy def donc loolu bu ñu amoon ñu mel ni moom léegi israéliens yi taxaw ci tooñ gi nga xam ne ñu ko tooñ le peuple palestinien maa ngi nuyu suñu mbokkum taalibe Bougane Gueye Dany suñu mbokkum taalibe du suñu xarit di ko di jëf-jëf ju rëy ci réew mi mooy bokk ci nga xam ni ñu ngi liggéey ci nit ñi am fu ñu daane seen doole waaye bokk ci nga xam ne li xew ci àdduna bi ñor na leen wax naa ko bu yàggul ni ko ba ñu tooñ peuple Rohingya bokk dajale ay fonds yóbbu ko Nations Unies ne nañ ko jébbal ñooñu loolu nag war na nekk africain wala nekk Sénégal taxut a yaafus nit fu mu nekk fu nekk war na nay défendre les causes nobles war nay taxaw ci kanamu ñi nga xam ne ñeen di noo di leen néewal doole. maa ngi nuyu mboole seen mbokk yi ma fekk di nuyu euh, <coughs> Oustaz Igwi Ndiaye ma ne ma sénti mbooloo mi su ma ko nuyu nuyu naa suñu mbokk arabisant yëpp ndax moom moo jiite ligue des diplômés de la te ma di nuyu oustaz Majib Seen mi nga xam ni mooy jiite jotaay bi kaddu yu gàtt lay doon mooy kàddu seede mooy kaddu yoo xam ne day wane ni taalibe Thiès yëpp sant nañ Serigne Saliou Touré taalibe Thiès yëpp bëgg nañ Serigne Saliou Touré taalibe Thiès yëpp Serigne Saliou Touré mooy seen sakk taalibe Thiès yëpp yëg nañu Serigne Saliou Touré mooy Serigne Touba ci biir Thiès ndax kenn du fa xewle mu tànkam na sa xew kenn du fa am aajo mu tànkam na sa aajo bés bu ne mu wax ko mbokk yi leen Serigne Saliou bokk na ci li ko tax a gaaw a màgget mooy stress tolloog audience te Thiès Carrefour la fu nit jógee ci àdduna ñëw jaar Thiès fu nit jëm jaar Thiès te boo ñëwee fekk ko ci këram gu tedd gu nga xam ne wutalu ko protocole amul dara boo ñëwee rek ci moom nga yem wax ko soxla bu ko amee jox la ko bu ko amul wuti ko jox la ko kooku mooy Serigne Saliou Touré ñun ñu dund ak moom xam nañ ku mu doon man nag ma am tawféexu doomu Serigne Touba boole ma moom te du ma dof doomu Serigne Touba du ma boole jëmm mukk ma koy sàggane Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke ibnu ba muy taxawal jumaam loxoom jàpp sama loxo ni ma yéen ñaan ñi am naa ci yéen yaakaar lu jotu loolu jàpp naa ko waaye bis boobu laa ko gën a jàpp te noonu laa ko jàpp incha allah ba na dama leen noonu naa naa taxaw ci plateau bi xam ne ne muriti Thiès yëpp ñu koy bëggee tey jii ku taxaw ci fulku bëlee nga xam ne bës bu ne lu ma ñetti junni doomu aadama nañu fay daje dafa jàng téereb Sëñ Tuubaa boobu di dundal sunna soos nga xam ne sëñ bi ci joxe wu ndigal waaye di ko dundal ci moom moom nga xam ne moo ko daan def ba bu koy mën tey jii yaramam dem ba diis njabootam gu tedd gi di ci taxaw taxawaay yu am solo ñoom ñëpp ñu xam xàmme lool xam ñi sëñ bi jàpp ak ñu mu jàppoon ak ñu mu fonkoon ak ñu mu daan sonn ci taalibe yi xam ngeen ni bërki démb rek samedi ñu ngi doon taxawal concours sous régional sur le Coran <coughs> doomam ji Cheikh Mouhamadul Moustapha ba mu fa ñëwee dafa yëkkati fukki kaamil ak ñaar ni ma sëñ bee la ko jox waaye am na woy yoo xam ni sëñ bee ma ko jox ni ma naa ko fi yëkkati ji mbooloo mi ngir seede sa digganteeg moom waaye ngir seede sa digganteeg njaboot sëñ Saliou Touré kon nag ci turu murit Thiès yëpp ci turu taalibe sëñ Touba yëpp ci turu ahlu tasawuf xam nga léegi ñu ngi doon seetaan benn reportage boo xam ni kër gi ne yëpp def moom reportage boobu Ndiassane a nga ci woon Pire a ngi ci Thiénaba a ngi ci euh, famille Alaaji Aman Jóge a ngi ci ñooñu ñëpp rek seen kaddu duñ ko tënkaale suñu kaddu rek wane ni Thiès kontaan ñu ci tànn gi Sëñ Tuubaa tànn Sëñ Saliou Touré ko ci biir Thiès cees ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér waaye si lam yow ñu lay ñaanal yàlla ndax ku baax nga ku nangoo sonn nga waaye kuy xool fa gën a ruqee nga dugal fa feeñal ni ñi baax ñi la kon nag loolu Euh, waxtu weexaat waaye woy yi ma téye Sëñ Saliou moo la ko woyoon ci biir woy yi mi ngi wax ni makaarimal axlaax yi Sëñ Tuubaa wax yu baax yaa koy lépp daje na ci yow ci biir woy yi mi ngi ci wax ni yéem na sa xam-xam waaye yéem na la yow ndax sa xam yëpp da koo jëlaat def ko arme di ko xeexe noonu lislaam yi ci biir woy yi mi ngi ciy wax ni siidi amoo guddi amoo bëccëg ndax fu ñu bëgg a fooyee lislaam nga taxaw défendre lislaam fu ñu bëgg a soofantale lislaam nga taxaw euh, défendre lislaam fu ñu bëgg a soofantale wane jëfi mag ñi suñu saa turé kon dama ko jàng jàpp naa sax moom dina ko jàng wala am ko jàngal tax lu am <coughs> ngi ñaan siir yàlla gën naa dëgëral gën naa kattanal ba li nga bëgg a liggéey réew mi ba ko liggéeyal askan wi ba ko liggéeyal ahlu tasawuf yàlla defal la tawfiix waaye laa xarwa ndax ku la xam xam bu tedd ba ni mu fonke woon xam-xam ni mu naa sonne ci xam-xam ni mu so ni mu fonke woon nitu diine yi kon bu amee njaboot gu mel nii du bett kenn ñu yàlla gën daal mboole seen magitaare bi nga xam ni bi ñuy ñëwee dañu ànd ak ñoom <laughs> suñ ci tuddee saabu ala ko jega mi ne tudd nañ ñëpp di nuyu soxna yi tedd yi nga xam ni ñoo ñoom ànd jóge Thiès waaye di beneen nuyoo njabootam ku tedd gi nga xam ne sëñ Abo Mbacke sëñ Abo Mbacke Touré mi nga xam ne moom moo fi teew ci turu njaboot gi yëpp di beral nuyoo suñu mbokkum taalibe suñu xarit suñu soppe Cheikh Ibrahim nga xam ni liggéey bi moo ko doon coordonné ak waa Walfadjri di ñaan yàlla yàlla nanguñ suñu jaam yàlla yàlla def jàmm ci Sénégal def jàmm ci réew mi nekk gi mu nekk tànneef ci wàllu jikko nekk tànneef ci wàllu doxin nekk taal tànneef ci wàllu mbokkoo ak wàllu xaritoo yàlla na ko yàlla sàmm te sàmmal ñu ko te seytaane bañ ci yoon maa ngi nuyu it suñu mbokk mi nga xam ne moo fi représenté le maire Talla Sylla mi nga xam ne dafa nekk France waaye suñu maire suñu mbokk Amène Mbaye ñëw na teewal ko kon ñu ngi yemale foofu kaddu yi ndax waxtu bi doo xaw xat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh